près de Kaffrine, et 100 blessés, dont 10 qui ont besoin d'une urgence vitale et le reste étant constitué de blessés légers pris en charge ici dans l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaolack et au Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, à l'hôpital régional de Kaffrine. et d'autres 47 autres blessés qui sont référés centre de santé de Kaffrine. Je voudrais, en cette la promptitude de l'administration régionale à travers Monsieur le gouverneur, les services de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers la région médicale, l'hôpital régional et l'ensemble des établissements de santé qui sont non seulement dans la région de Kaffrine, mais saluer la synergie organisée par le ministère de la Santé depuis Dakar, Kaolack et les autres hôpitaux qui ont mis à la disposition du personnel, mais également des capacités. Mais il faut se réjouir de la présence de cet hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine qui a pu prendre en charge l'intégralité des blessés. Et ils étaient nombreux. Et il faut saluer également le dévouement du personnel médical, tout comme le procureur de la République de Kaolack avec ses équipes qui depuis hier nuit à 4 heures du matin est sur Kaffrine Au moment où je vous parle, déjà 20 corps ont été, plus de 20 corps, je crois, ont déjà été identifiés et bientôt pourront être remis à leur famille. La difficulté restera l'identification des autres corps. Ça se fera au fur et à mesure. L'État apportera tout le soutien et toute la solidarité aux familles endeuillées mais également aux blessés ou à leurs familles pour pouvoir atténuer leurs souffrances. Je salue également les efforts du ministère des Transports terrestres et du ministère de la Solidarité nationale, mais surtout saluer aussi les efforts de la commune de Kaffrine à travers son maire, le ministre Abdoulaye Seydou Sow, et toutes les bonnes volontés qui se sont spontanément présentées à l'hôpital pour apporter leur soutien. Bien sûr, cet accident nous montre qu'il y a des ruptures à opérer et il y a des mesures à prendre et ces mesures seront prises pour mettre un terme à cette situation. On ne peut pas exposer la vie de nos compatriotes dans un système de transport qui fait fi du respect de la vie humaine. Nous avons perdu beaucoup de jeunes dans cet accident. Et dès demain, le Premier ministre réunira un conseil interministériel qui va impliquer le monde du transport, les transporteurs, les chauffeurs, les assureurs, les services de sécurité, pour voir les mesures à prendre sur l'état des véhicules, sur le contrôle technique, sur les conditions d'établissement des permis de conduire, sur les conditions de délivrance des visites, des attestations de visite techniques et sur les horaires de transport pour ce qui concerne les véhicules, les cars de transport de voyageurs. Alors toutes ces mesures devront être identifiées et nous prendrons toutes les mesures que requiert cette situation. Parce que qu'autrement, nous allons encore vivre de même drame à l'avenir. L'usure des pneus, l'usure des véhicules, la transformation de véhicules en violation des normes de sécurité doit cesser dans notre pays. Et j'attends du gouvernement qu'il me donne dès demain les mesures à prendre, elles seront prises. Nous sommes prêts, bien entendu, en tant qu'État, à accompagner le, le secteur des transport pour en partie le renouvellement du parc et la limitation des âges de véhicules de transport commun qui nous viennent de l'étranger. Tout cela sont des mesures qui seront prises dès demain afin de créer les conditions d'une meilleure sécurité des usagers sur la route. communication à l'instant même du président de la République son excellence monsieur Macky ñu déglu ba tey njiit réew mi euh, ginnaaw bi mu waxee euh, wolof ñu déglu njiit réew mi président Macky mbokk yi tey jii Sénégal am na tiis bu màgg tiis la boo xam ne dañu yeewoo ak moom muy accident boo xam ne bu ñu xool ci suñu histoire mel na nu ñu gis accident circulation ay oto yu entraîné autant de morts fanweeri nit ak juróom-ñeent ñàkk nañ seen bakkan ci accident bi fanweer ak juróom si saasi ñeent ñi bu ñu ñëwee ci l'hôpital lañu faatu ah loolu nag démb deer bi tey ñu ngi wax ñeent fukk ak benn waaye dañu fekkoon ci morgo hôpital bi ñaari nit yu génnoon àdduna donc waxtu wi ñuy wax fanweeri nit ak juróom-ñeent ñoo génn àdduna ci accident bii muy accident bu metti nii ni nga xam ne noonu la amee téeméeri nit ak fanweer ak juróom-ñeent ñoo nekkoon ci ñaari oto yi muy lim bu diis ñu gis ne nag jot na ñu jël ay matukaay ci oto yi transporter doomu aadama yi ci condition yi ñu leen di transporte ci condition yi ñuy joxe permis si at yi nga xam ne ñiy dawal aussi war nañ ko am parce que boo yebee juróom-ñaar fukki nit war nga xam ñu nekk sa ginnaaw ay doomu aadama lañu ay borom kër lañu ay yaakaaru njaboot lañu ay avenir réew mi la donc loolu dafa laaj maturité dafa laaj taxawaay gis nañu itam ne waxtu wi ñuy daw jaaduwul donc loolu ëllëg bu conseil bi sayto yooyu yëpp danañu jël ay dogal yoo xam ni ak ci at yi nga xam ne oto yi am nañ ko màggataay bi loolu yëpp danañ si jël mesure pour ñu mën a sécuriser mën a assister population yi pour bañ di gis lu mel ni di am bés bu nekk donc maa ngi jaale njabootu ñu nga xam ne seeni mbokk bàyyee nañ ko wàññeeku nañu si accident bi te ñaan yàlla mu xare leen àjjana te ko def si turu réew mi yëpp di masaw ñi nga xam ne feebar nañu am nañu ay blessé ay blessure ñooñu visité nañu leen euh, takku lim bi takku na lool waaye nag ñu sant yàlla bi hôpital bi nekkee fii ci Kaffrine ndax lu toll ci téeméeri nit am nañu ay gaañu-gaañu muy ay blessé te ñoom ñëpp hôpital bi jël na leen en charge ginnaaw kenn ku ñu évacué ministère de la santé tam yónnee na ay docteurs yu mag ay chirurgiens yu jógee Ndakaaru yegg si nañu pour renforcer waaye hôpital bi am na bépp matukaay pour mën a faj blessé yëpp kon loolu jar na sant yàlla mu mel ni kon fajkat yi taxaw nañu ni ñu war a taxawee lépp lu ñu soxla it pour faj leen am na macha allah sapeur pompier gendarmerie nationale administration gouverneur ak ay service am procureur de la république ndax ndegam ay nit faatu nañu ci accident il faut mu joxe ndigal pour ñu mën a libérer corps yi am na si ñaar fukk yoo xam ne xam nañu ñan lañu ñooñu dinañ leen jot seeni mbokk gouvernement bi dana leen gunge ci mbir moomu ci wàllu solidarité euh, ginnaaw loolu itam gouvernement bi dana taxawal ëllëg ci njiitalu premier ministre conseil interministériel boo xam ne ak ministère de transport ministère de l'intérieur forces armées ak ministère de finance pour ñu xool condition yi ñuy demee ci transport public ndax Sénégal mënatul bàyyi lii di continuer mënatul wéy oto yi yóbbu transport ku ne gis na ni ñu mel kon réew mi war na def effort état bi dugal ci loxoom ñu renouveler parc bi ñu moderniser système mu transport de passagers fexe ba oto yi daw nekk oto yu nekk ci yoon waaye oto duñ ko defar ba pare nga ñëw transformer ko teg ci porte bagage te loolu ki tabax oto bi construire ko boolewu ko si def ay siis si diggante bi loolu da ngay indi danger pour ñu si dugg indi danger même pour ñu ngay daje xam yooyu yëpp mooy dogal yi nga xam ne bëgg naa ëllëg bu ñu ko saytoo ñu mën ko ñu mën a jël dogal yi ginnaaw loolu def naa décret pour def dëy ñetti fan maanaam ñetti fan yoo xam ne Sénégal si dëj lay nekk ndax tiis bu mel nii drapeau yëpp daañu ko wàccee à partir de ëllëg euh, dinañu permettre tam ñu gën a saytu xoolaat li nga xam ne moom la ñu war a def ngir suñu réew mën a génn si jafe-jafe yu mel nii maa ngi sant vraiment ñëpp ñi nga xam ne euh, surtout xale yi ñëw may si deret population bi spontanément loolu itam ñu ngi leen di gërëm euh, di gërëm euh, nit ñi nga xam ne dañu ñëw indi seen doole pour jàppale ñi nga xam ne ay mbokk blessé lañ ñëw ñoom it jógee fu nekk ñu jóge Kédougou ñu Tamba ñi Vélingara ñi Kolda parce que benn bus bi fa la jógee ñuy Kaffrine nag feneen Euh, loolu tam maa ngi sant ñoo ñëpp waaye nguur gi si ndigalu si euh, loxo ministre Samba Ndiobène Ka bi yor solidarité dana def lépp lu ci war euh, pour que ñu mën a jàppale njaboot gi jàppale ñi nga xam ne ñàkk nañu seen mbokk waaye aussi jàppale blessé yi ba nga xam ne dana mën a wàññi seen coono ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw mu nekkoon euh, communication bu am solo bu njiit réew mi président Macky Sall euh, jël ay mesures drastique yu am solo yoo xam ne fi mu nekk nii moom euh, définitivement la ñuy réglé mbir mi bokk na ci kon